ci leneen Mame Matar euh, lii di l'islam maanaam euh, takk soxna polygamie est-ce que euh, jaadu na nga bañ ko wax sa aaw am déet le cas de Abdou Aziz Ndiaye ak soxnaam si. waaw loolu day l'islam li mu rafetal li mu gërëm mooy shura waaw suñu boroom wax na ko et c'est ça englobe toute la vie familiale et communautaire muy baat boobu am amruhum shura baynahum suñu borom nee na. yéen jaam yi da leen di faratal shura shura moom la tubaab di wax concertation wolof di ko wax diisoo waaye dafa am suñu borom lu mu ci teg dafa ne fa isa azamt nee na boo leen sàmmoon teg principe boobu ba noppi nee na fatawakkal alallaa yi li des ngeen bàyyi ko ko yàlla voilà kon nag euh, li gën a rafet voilà et puis cër la sax booy jox sa aawa parce que ba yëf ya mettee aawa ya fa nekkoon di dékku alors kon nag ku dem ba bëgg ko wutal rakk le minimum le minimum mooy nga toog moom ci njëkk soit nga convaincre ko wala boog convaincre loo ko waaye def nga sa devoir mooy bettoo ko euh, te itam jox nga ko cëram voilà kon nag euh, sama compagnie yi nekk ci waajal ñaareel ana ana soxna si mu ngi fi mbaa du ñu dégg waaye moom day suivre affaire yi dina ko gis voilà kon suñu moroom yi waajal loolu maa ngi dénk sama bopp di leen dénk waxtaan leen ak aawo yi ana ana mami yow waxtaan naa ak yow de. kër ga bañ a tas. ah laajal soxna si waxtaan naa ak moom de. def naa sama devoir loolu kii naa ko eh, briefé naa ko indil naa ko ay addis ba mu ne est-ce loolu moom ça viendra waaye kon la l'étape la plus l'étape la plus importante moo doon boobu quoi. Mm. voilà kon maa ngi ñaan suma. naataangoo yi yi nekk ci yooyu tànk parce que l'islam may na leen ba ñeent waaye nu mu mënti demee day leen di waxtaan ndax jabar nawle la jabar du koo xam ne danga ko war a mettre devant le fait accompli xam nga soxna si maa ngi nii di wax naan dañu koy waaju utal rek du du ko bett dana i eh, ci réseaux sociaux yi nga ma ko yëgale du ko wax parce que réunion nañ ci <laughs> kon suma jaan wàcc na ah xam nga tubaab dafa ne on ne peut pas être plus royaliste roi xam nga yéen déggu leen man déggu ma fu ko soxna euh, awa bi naqar wa waaw kon de tey ñu cee tey ñu cee maanu rek. Mm. parce que c'est une vie de couple. ki a ses femmes ses mystères et ses secrets. voilà kon ni ngeen ko gisee noonu lañ ko gisee waaye comme que dégguma fenn aawa bi naan naqari na ma wala mu yóbbante te yëpp mën na ko def. waaye mu ne tekk ñun tam nañ ne tekk rek te maanu ci euh, couple couple bi euh, ak sëy jàmbur. c'est ah boobu itam raté naa ko kii li nga li nga wax tamit xam nga waa ji nu mu tudd. engagé engagé tamit maa ngi doog a dégg boobu tur <laughs> waaye xam nga ñu mën temps wu di xuus ci réseaux sociaux day am moment damay off complètement c' le cas de semaine wax naa leen sànq raison bi ah. euh, de sénégalais ci suuf ah. euh, à Dubaï te te il fallait les rapatrier c' et j' de vous préciser bu ñu paree ci dossier Dubaï bi. maa ngi remercier euh, ñi ma saisir te te te jógee euh, Nicaragua euh, yemuñu rek ci dossier Dubaï <laughs> et je prends le directeur de l'ONT à témoin Mounirou li waxtaan nañ ci dossier Dubaï c'est réglé ils ont été rapatriés les formations vont démarrer incessamment bu ñu paree président Macky Sall joxe na ndigal pour ñu jox leen ay financement ñu am des activités génératrices de revenus kon dossier Dubaï bi mu ngi en cours waaye na seen xel dal bu ñu paree dinañ ubbi dossier des migrants de retour du Maroc, loo dossier des migrants de retour d'Espagne et de retour du Nicaragua. alors kon nag euh, yooyu comme que sama pris beaucoup de temps voilà loo tax yii nga wax ak engagé ak yu demee noonu daf ma rëcc <laughs> waaye nag euh, euh, waaye nag il vaut mieux tard que jamais. waaw loolu yëpp bokk na ci activité Jamra ndax xam nga am na yoo xam ne yow yaa ngi nii di soulever un problème vital et plein de dignité pour euh, l'image internationale du Sénégal Jamra ngi ciy xeex yow yaa ngi intéressé wu ji ba di ci wax ba di ma xiir pour ma wax ci mhm. maa ngi saluer loolu mais par contre dafa am bon du ñëpp nag c'est une petite minorité seen natango bu ñu ne bon y avait liggéey liggéeykat yi ñu dàqoon UCG ñëw nañu sàkku si Jamra mu dox tànku jàmm Jamra jox na si tànku jàmm ba Mass Thiam la DG non seulement réintégré na leen waaye diiru li ñu toog donte la liggéey ñu ko fay na leen ko gars yi ne eh, ñu ne bon avant Sénégal état bi ameel nañ 3 milliards 98 millions sàkku nañ ci Jamra j'insiste bien sur sàkku pour les mauvaises langues qui disent que Jamra day def de l'automédiation sàkku nañ ci Jamra mu dox tànku jàmm seen diggante ak jam Jamra dox na si tànku jàmm ba foqati na 390 millions jox nañ ko léegi amasénal gars yi ne eh waaye boo nee rangu ñu ne ah waaw voilà affaire u taat rek lay wax ça c'est malhonnête loolu yëfu naafeq la bàyyi leen lool yëpp naa naafeq la voilà du aboo ngi nii yëkkati quelque chose de très intéressant danaa danaa ci tontu avec beaucoup de kii te jamono yàgg na di liggéey ci lool waaye gars yi dañ koy zappé rek pour pour bëgg am argument naan waaw jamono daal ay amétis rek paw yi rek rangu rek lay wax ça c'est malhonnête loolu ça un millième des activités de Jamra alors loolu nga wax yàlla dafa dogal que ay ci 2003 bii ñu ne euh, Palestine ñu ngi ko créé en 1948 donc ay def na 75 ans mu di loo xam ne daanaka ñun ñu toog fii yëpp dégg nga ba ay di jolli ñun juddaguñu woon te boo moytul te ñaanuñu ko yàlla. dinañu dem bàyyi fi suñuy doom ak suñuy sët ay yu te kenn ñaanu ko yàlla alors lu mel noonu bu amee dafay bari des manœuvres de d'intoxication et de manipulation qui risque de d'inculquer à nos enfants et aux musulmans d'une manière générale le contraire de la réalité gis ngeen temps yi quand la Russie agresse l'Ukraine Union européenne jóg jàppale leen jox leen arme des vivres assistance humanitaire ba pare na leen tenez bon vous êtes des résistants Israël depuis 75 ans ñuy agressé Palestine Hamas jóg riposté ñu ne leen vous de des su ko defee c'est très dangereux ñu sàggan ba suñu doom suñuy jarbaat dem ba xen palestiniens yi alors que les palestiniens sont des victimes voilà moo tax lii nga def mhm. dafa am solo yéen vous êtes des hommes de médias mhm. da di war a fexe toujours rétablir la vérité des faits alors moo tax nag lu mel ni taarix daf ci baax moom la tubaab di wax historique dafa amoon diiwaan bu mag a mag a mag avant le déclenchement de la première guerre mondiale en 1914 ñi di ko wax l'empire ottoman moo ëmboon l'actuel Liban ëmb Syrie ëmb Palestine mhm.